mun nañ ko wax à travers le monde bu loolu yi suñu kilifa yi nekk fii ci Sénégal d'abord le président de la République personne interpeller le ministre notre ministre de tutelle des sports mu demander à ce que le CNG impliqué wu ci étape yépp depuis signature protocolaire bu sponsor yi ba déroulement lamb ji looloo tax tey ji CNG jël matukaayam ba fexe lii mën a am tey parce foogoon nañ ne mënul am waaye yàlla def na ci sutura ba lii dinañ ko taxawal ci jàmm ak salaam euh, bu du loolu itam bu loolu passé itam dinaa ci yokk benn précision rek bu war a am tey parce que lire naa ci journal ñu ne dañoo euh, bu euh, intervertir protocole bi parce que dañ waxoon ne que am na ko waroon njëkk a ñëw mujj ñu daal di ko wëlbati ba kenn ki mujj ñëw loolu amul. li am moo di biñ demee ci bureau commissaire bi dañ laaj ñaari manager yi. ñu ñooñu laaj kan moo war a njëkk a ñëw ñu ne comme léegi la commissaire est là il est na génn benn pièce ñu tiire au sort xool kan moo war a njëkk a ñëw bi ñu defee tirage bi ñu gis ne que euh, manager wu manager wu Yékini moom moo gañee ci tirage boobu ñu laaj ko ndax nga ko bëggee mooy dafa bëgg a ñëw après te noonu la ñu établir ordre pour ñu ñuy ñu ñuy ñëwee dugg see fii ci ci biir signature bi loolu précision bu rek mënoo indi di wax rek nag métikaay yi ñu war a jël yëpp jël nañ ko. te tey jii bu réussir woon en effet ni nga ko waxee làmb ji dañ ko naroon dàq naroon woon am ba pare nag moo am yeneen poursuites yoo xam ne dana danañ ko teg nit ñi waaye nag yàlla def sutura biñ ci duggee xamoon naa ne que nii rek la mën a demee. parce que lii du leneen du du làmb làmb bu ne am na fi kon boog il pas dit que lii mu taxaw mu mën a ñàkk bañ a euh, tegu ci yoon yàlla def na ci sutura biñ ci impliqué woo taxaw ci wax leen ko ñu dégg dama ne bu ñu leen invité woon cent fois itam bu ñëw ñoom ñaar toog fii benn problème du ci am xëy na ñii àndalay ñëw indi indi problème waaye ñii ñaar ay champion lañ ñu xam leen nga xamee ne que mënuñ ñëw taxaw dal di yàq dara kon boog tey jii nii rek la mën a demee ñu ngi ciy félicité wu di yaakaar na itam nii lay continuer ba bésu làmb ja incha jërëjëf euh, président Cheikh Tidiane euh, Ndiaye mi ngi feggoo également ak beneen président un tout nouveau président muy le président des amateurs monsieur Cheikh Sarr ñu koy ndokkeel d'abord ci li nga xam ne moom la ñu ko tànn teg ko à la tête des amateurs mais amateurs yi aussi am nañu kàddu ci li nga xam ne moom moo war a xew le 22. ñu bëri amoon nañu njàqare am na amateur sax yu nga xam ne ragaloon nañoo ñëw mais yaakaar naa ni war nga mun a dalal seen xel ci bës bi nga xamante ni benn amateur war la toog ñu la koy nettali n'est-ce pas président Cheikh. wax nga dëgg Malick ngi maa ngi nuyu ñëpp réunion bi nu mujj a def si bureau commissaire. keroog bi ñu génne laa xam ne jàmm dana am parce que. benn comme impliqué nañ si CNG ba CNG jël si matukaay maa ngi woo képp ki nga xam ne amateur nga na nga ñëw bu kenn ragal dara sécurité am na na ngeen teel a ñëw teel a jënd seeni i billet teel a dugg bu si bu am kenn koo xam ne da ngay am looy ragal wala looy tiit si combat bi jàmm rek moo si am maa ngi doon jokkonteeg Luc si suba di ko laaj affaire billet yi. maa ngi waxtaan ak moom nee na dina si déem a def xéewal lu mu mun munti dem dina ko def ba ñëpp mën a dugg seetaan comme combat bi dawe bi moo ëpp moo rëy mënoon na ko yóbbu sax amitié mais comme yóbbu ko amitié ak stade bi nu mu tuutee ak dépense bu mu si def dina jéem a seet ba xam lu mu ñuy dimbale si billet yi. Hmm. waaw parce que man ñun amateur couverte découverte yooyu tant que mi ngi nekk si seen. tant que ñi mi ngi yomb rek du am problème mais loge moom lu ko neex mën na ko jaayee leneen lu ko neex mën na mais euh, couverte découverte kooku moom vraiment maa ngi koy ñaan waxtaan naa si ak moom nee na ma dina si def lu mu si mun nit nag soo xamee ne moom moo jël xaalisam def si xamuloo lu ko ñaari mbëri jaral ba mu def si xaalisam loo si mun mooy ñaan rek ba xam pour mu saafara ko donc maa ngi ñaan amateur yi yëpp fu amateur nekk na nga ñëw solu seetaan làmb ji làmb ji jeex nga ñibbi bu kenn tiit li fa gars yi def ci sécurité yaakaar naa ne suñ doon def ay combat combat sax du tax mu problème parce que dafay am réew fu muy toll état de si dugal loxoom te état bi def si dugal loxoom woo ministre de sport ministre de sport woo président CNG ñu ñu ñëpp ànd si moo tax képp kuy amateur na na sa xel dal da ngeen teel a ñëw loolu la amoon lu ma si wax Malick ba si kanam. jërëjëf euh, président Cheikh Sarr ñu lay euh, jaajëfal également euh, di la félicité ci nomination biñ la nommé di jaajëfal également du jaan jekko mi nga fi wuutu ci liggéey bu rafet bi nga xamante ni jot na ko fi def léegi ñu ñëw ci ki nga xam ne moom mooy Luc Nicolaï Luc am na ñaari rendez-vous yu nga xam ne raté nañ ko tey yàlla def na ci sutura bii moom ala kulli haal allah dinañ ko tàmbali ci bisimilahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabil alamin mais ku ne xam na ne lamb bu eggee fii du poosu Luc Nicolaï moom moo ko tëgg dafa am lu nga xam ne moom la ñu tuddee sponsor les sponsors def ci seen alal mu mën a fay mbër yi lu nga xamante ni jaral na leen ñu sëgg bëre mais bu jiixi jaaxa amee violence am sponsor yooyu dinañu am tuuti njàqare ci li nga xam ne moom mooy làmb ji te bu ñu téye seen loxo làmb ji dina nësëx alors ci wàllu sponsoring boobu ak ci wàllu événement yi nga xam ne jàll na ban bilan la ci Luc Nicolaï tiire ak naka la lay projeté en direction du 22. merci Malick Thiandoum euh, gannaaw bi ma sant suma sëriñ di nuyu ñi nga xamante ne ñëpp ñu ngi seetaan di nuyu presse bi fi teew tey. di nuyu le président du CNG ak ñi nga xamante ne moom la ñu àndal ak le président des amateurs ak vraiment ñi fi teew ñu bon sponsoring bi Malick je pense que comme ni nga waxee moom lañu sax la ñu waroon a ibbee débat bi parce que tey boo gisee lii mën a am tey bu du loon ñoom je pense que tey ñu tax toog fii di def événement yu tool nii ñeme cee def yenn xaalis yi Euh, là je vais ouvrir damay ibbi ak sponsor bi nga xamante ne mooy sponsor leader ci làmb tey muy Orange di aussi sama sponsor leader année bi bon je me dis que aujourd'hui li may wax nii vraiment mbër yi nga xamante ne ñoom ñëpp ñu ngi jàkkaarloog man di ma seetaan ak ñaari mbër yi toog fii parce que ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay donc bu ñu war a waxante dëgg rek nañ ko waxante parce que je pense que c'est important pour mbir yi mun a avancer et puis vraiment situer les responsabilités surtout c'est important pour dem ci kanam dans l'avenir ñu bañ a am benn problème parce que je me dis que aujourd'hui un sponsor comme Orange boo xamante ne en termes de notoriété amatul lu muy prouver parce que tey notoriété Orange ñi fi toog ñëpp cent personnes yoo jël Sénégal boo leen laajee ndax xam nga Orange dañ la naan xam naa ko kon ñooñu wutatuñu notoriété ñooñu fu mu toll nii leneen la ñuy def ci làmb loo xam ne dafa wute ak wut notoriété image bi leneen moo leen indi ci làmb mooy image yi nga xamante ne moom la mbër yi di refléter tey image yooyu nag bu positivul je pense que Orange est une firme internationale une entreprise internationale du ñu nangu tey seen marque di associé wu ak yenn yi ce qui s'est passé et regrettable donc euh, ni koy wolof di waxee bu ndox tuuroo an baax ci des donc nañu waxante pour surtout ëllëg parce que hormis tout ça Orange aussi est une entreprise citoyenne parce que tey bu duggee ci làmb ji comme ni mu duggee ci football bi dafa dugg aussi pour jàppale làmb ce n'est pas pour des retombées simplement financière wala des retombées d'image yooyu orange même a le devoir même tey jàppale làmb donc bu ñëwee ba dugg ci biir làmb ba làmb egg si fii tey je me dis que aujourd'hui wax dëgg yàlla dañu leen war a delloo njukkal et que mbër yi aussi delloo si seen xel xam ne sponsor boobu image bi moo tax ñuy collaborer ak sponsoring bi e je pense que les lutteurs l'ont compris parce que c'est des grands champions ñoo fi toog tey muy euh, Yaxya Diop Yekini ak euh, ak euh, Balla Gaye numéro 2 bon li am am na ba pare comme ni ma ko waxee woon nag man dafa am yoo xamante ne mënaguma ci wax ndax ñu ngi jëm ci bés bu mag le 22 et je pense que après le de dinañu mën a toog débat yenn yi di ñëw aussi ci sponsor bi nga xamante tey moo fi toog muy Jonge ak Sofia xamante ne ñoom it ñu ngi ci làmb ji donc je pense que ñoom it samay sponsor la ñu ren ñoom laa ànd di liggéeyal et puis vraiment dama bëgg ñu delloo leen njukkal delloo leen vraiment. Euh, li nga xamante ne rendre préoccupation la am que que que beneen sponsor bi maanaam seen image bu ñu koy lii ci làmb ji ci anam yu rafet lañ ko bëggee. dëgg la Malick parce que aussi mooy li ma wax comme tey dañuy toog askan bi yëpp di ñu seetaan ñu war a waxtaan. vraiment euh, man de ni ma koy waxee Balla Gaye 2 mii xam nga ni du dem ci mbedd bi di wër.